1997 lañ ko formé woon waaw demoon sëñ Saalum mu joxoon tur Miftahul Nasri <coughs> boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi wéyal boobu ba léegi amul bis amul amul bisu àdduma bisu bisu àjjuma guddi àjjuma boo xam te jot na te defuñu ko xanaa mu tombeek ñu ni suba la tabaski wala affaire yu demee noonu waaye 1997 ba léegi ñu ngi ñu ngi ñëw taxawal daayira bi waaw wax dëgg yàlla waaw di gërëm mbokk taal bi nga xam ne moom lay liggéey bi ñëpp nekk ñëpp nekk ay borom passif waaye eh, Olof Ndiaye dafa wax ni moom montre yu baax ñoo bokk kon ñii suñu mbokk taalibe lañ mu am say moor mi démb si guddi mu woo ma am am loo xam ne daf ma ko wax léegi-léegi dañuy jox kenn si ñoom cadre bu ko defee bu ko defee mu leer ko mbooloo mi ko defee ñëpp ñëpp yëgaloo ko mhm. moom nag moom moom tam mu wax ma lu moom wax ma lu am solo nee na daayira bi mu taw na si bii 97 mi ngi ko formé parce que moom xam na daayira bu baax parce que ay jorbaatam yëpp sëriñ si lañ bokkoon ñoom duuba nee na nag 97 bi ngeen formé ba loolu moo loolu loolu nag yi loolu moom lañ si xar suñu tànk tubéy lépp lu ñu wax fii ñu nekk lu nekk lu nekk loo xam dañ koy dégg ba pare ñu daa koy jëfee waaw liggéey parce que fii liggéey liggéey sëñ amul de liggéey sa bopp sëñ Tuubaa moom ah, hmm, liggéey sa bopp sëñ Tuubaa moom ndax sëñ Tuubaa moom li ko yàlla may ay mbiram day kawe waa du laal suuf ay mbiram day kawe rek waa du laal suuf nee na lam yeen huni selu wala wéy bi nee na suñu borom musuma corrigé hmm. sëñ Tuubaa nee na suñ suñ suñ suñ suñ suñu borom hmm. suñu def lu ma lu ma suñu borom naa ma lii war a ko war def kon nag kooku soo soo ànd ak maayam noo war a mel. kon sëñ bisimilah ko jox leen kàddu rek. waaw ah, asalaamaaleykum. ñoo ngi ziar bu baax te tey jéggul bu dégg nag. ñoo demoon yeneen barab rek. mbooloo mi ñi ma àndal. ci mm-hmm. njiital sëñ Yirim Aw. mooy Kanzul Muxtadin mm-hmm. di def taxool bi su xasida ci kër sëñ Tuubaa gi ci Pikine yàgg nañ koo def na am na ñenn ci mbooloo mi xam nañ xam nañ liggéey dañoo dañoo dañoo toll ci gën a yaatal liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee woon naam daayira yu bari ñu ngi jokk ci ànd ak ñun ci liggéey waaye day accès gu ci daayira bi mhm. ñu tànn nag daayira ci ci daayira yi nga xam ne fas fas yéene leen siyaare si xamal leen liggéey bi ñu mën cee ànd noonu ko sëñ bi digle woon naa mhm. ci leeral tuuti xat na waaye benn liggéey li ngeen di def nii ci lañ nekk te ku muy liggéey waaw ñun ñëpp ay daayira lañ ñun ay daayira ñun ñi ay jóg wax nag eh, ñun dañ ciy firnde ndax samay jarbaat ci ñuy sos daayira bi waaw mhm. koy tàmbali boobu man dëkk la fii man dëkk ci ginnaaw jumaay foofu laa dëkkoon ñoom ci daayira ñu bokkoon saa su lii nag taw feex la ndax boobaak léegi dafa yàgg 97 léegi moom du ñaari fan kon ñi ci nekkoon bu nëgg ni ñu ñu ay borom Pastef ndax rek moo koy téye dëgg la war a muy dox ba àgg fii ca kanam la jëm ndax wax naa dégg ñuy wax ñu waxoon na luy dox ñuy dox ba am fukki at moom loolu bu nawee kon xel mën na kii kat ñu suñ suñ suñ suñ yéeme aw mooy mooy mooy jëwriñu fédération ànd ak Babacar Ka ñëpp ci culturel bi lañ bokk ak sëñ Baye Mbow bàll nañ ñëw daare ñeneen ñi dañoo <laughs> <coughs> ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ba leen balaq nag ndax ku ne xam na ne ndakaaru xat na te suba bisub liggéey la mm-hmm. kon bu ngeen jaayanteeg sëriñ bi ba waxtu wi mel na ne luñ ci dolli rek xam naa bu doon bu doon bu doon bu doon lu génn sëriñ bi kenn du ko fi mën a xaar. waaye dara génn ci sëriñ bi. ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziar góor liggéey bi di ziar góor ak jigéen mag ak ndaw di am mbégte it ci nii ñu leen fekkee ndax di wax dëgg yàlla jataayu Pastef ndax mënoon nañoo ñëw fekk fi mbooloo mu néew waaye mel na ni nii ñu ko fekke kenn ku ne am na pas-pas boo jox liggéey bi kon yàlla nañu yàlla nangul lépp liggéey bi sëñ Mor di wax nag Euh, mel na ni jamono yi tawféex da cee feeñ. Mm-hmm. ndax bokk na ci bis yi nga xam ne moom lañ njëkk a def ci bisu xasaay. ñu mm-hmm. ko tàmbali ren mooy fukkeelu at ak juróom-ñaar. Italie rek moo ñu fi jiitu Italie njëkk a def nag bisu xasaay ci àdduna. Italie ku njëkk a def waaye bis bii ñu leen di wax mooy ñaareelu bis bi nga xam ne def nañ ko bisu xasaay. lañu ko xamalit mooy ba ñu koy wax Seex Saalihu Mbàkke yal na yàlla dolli leeram daf ne bis bu mel nii de maa ngi koy doog a dégg waaye de bu dee nii ngeen ma ko waxee ni ngeen koy defee di ngeen ci dajeeg ndimbalu Sëñ Tuubaa ak tawfeexam te maa ngi ci seen biir. loolu it ne am na ci ndax boobaak léegi léegi mu yàgg ndax luy dox ba am fukki at ak juróom-ñaar ni ngeen ko waxee léegi ci ci daayira Miftaahu Nasri na ne Miftaahu Nasri am na ñaar fukki at ak juróom. defe naa nag ku judd ba am ñaar fukki at ak juróom da am loo war a man kon mel na ni lu yàgg la euh, bi mu ñu ko waxee it yemul ci wax ñu lool rek daf ne euh, sëñ Abo Mbàkke imaam bi ne woon bentali moom moom la dem di ko yëgal bis bi mu ne yéen mu leen doon wër ndax sëñ bi daf ma leen wax daf ma tegtaloon yéen te xaw ma fu ngeen dëkk ndax dane moon am na ñu fi ñëw wax ma bis nañ ko waxee de bu dee ni lañ koy defee na ko dem xoole bu dee noona la wax naa leen ne maa ngi ci seen biir te du ma ci jóg te di ngeen ci dajeeg ndimbalu sëñ Tuubaa ak taw fee xam sëñ abonné nag alhamdulilah rabbil alamin ñu wax ko fi muy doon ak yëpp sëñ abonné maa ngi ñëw teewal sëñ sëñ Saliou ba mu ñëwee ba toog ba xool jataay la ne lépp lu ma sëriñ bi waxoon rek gis naa fi lu kawe sama njort te bu ma demee dinaa ko waxaat maanaam kon loola dafa mel ni euh, mbir la moo xam ne sëriñ bi teg na ko loxo loolu tax mu egg fi mu egg muy bis boo xam ne dañ ko jagleel alxuraan ak xasaay amul politique amul maire bi ñëw wax amul ministre ñëw wax kenn du ñëw di fa wax lu dul xasaay ak alxuraan lu dul kafa teewal sëriñ ak li waral mbooloo amul ay sees it yu ñuy teg amul maanaam fa la njëkk a tàmbalee loolu booba bisu xasaayit amut maanaam ñu di ko def di ko def ba ren daayira yu bari nag dañ cee bokk du du Pikine rek ndax trésorier bi wakaam la dëkk ki yor culturel Guédiawaye la dëkk ki yor communication Grand dëkk ki yor mu nga dëkk Malika kon mel na ni ay banqaas yu fasantikoo la ren nag ak daaw ñu am yéene ne daayira yi ne Pikine nag lu mel ni daal di ko fi def ak xéewal gi ci ne am ñoo xam ne xëy na ñu ngi wàll si ndax leer na ma ne bari na ci mbooloo bi ñoo xam ne bis boobu nañ ci ñëw waaye nag jëmmi daayira yi àndandoo liggéey bi nga xam ne dañuy bokk ci nos ya ak nocc maanaam donte duñ ne daayira bépp mën nañu ñëw ci réunion yi yëpp waaye réunion